salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Dakarnet ginnaaw bu ñu leen nuyoo bu baax baax di kontaan ci eh, topp bi ngeen ñi topp alors seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd gise ak dafay dellusiwaat tey nag eh, ñu dalal fi ki nga xamante ni suñu kilifa la di royukaay ci réew mi ñëpp xam ko macha allah naw xam-xamam lool muy oustaz Alioune sàll ñu war a waxtaanee actualité réew mi mais balaa ñuy sori ci waxtaan bi dañu koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet yu Dakarnet di ñu ñëw ci yaatal bi ñu ngi lay rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani xaw li maa ngi leen di fa nuyoo di nit nga xam ne ngi leen seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew di ñaan borom bi tabaaraka taala jataay bi mu amal leen njariñ ñoom ñu koy seetaan amul nu njëriñ ñun ñu koy def alors ñu ñu gis ni euh, fan yi actualité bi euh, ba léegi sax daanaka mu ngi si muy xeexu mbirum borom ñaari tur yi ak yeneen jikko yi nga xamante ni dafa commencé di yàqu euh, daje bi nga xamante ni woote woon nañ ko fële sàmm jikko yi mu am si totaal ginnaaw daje boobu noonu lan nga jàpp ni moom moo war a nekk li si li si war a topp. alhamdulilah waaw li ci war a topp de mooy ginnaaw woote nañ ndaje bi nit ñi wuy si li ci war a topp mooy ñooñu wuy si ñu xam ñooy ñan fu ñu dëkk luy seen liggéey lu ñu yëngatu pour bu daje di amaat mu yomb ku ci nekk yëg ne daje yi rek lu sottali yëf yi. waaye nit mbir dañ koy nose ndax caaxaan ñu nose sax moo gën dëgg guñ nose wut loolu sëriñ Cheikh moo ko daan wax almaktum radiyallaahu taala anhu kon léegi li ñu war a topp rek mooy loolu xamee ànd booloo dankaloo nekk wenn say léegi su boobaa daañ yëg ne am na lu fi nekk lu daje woon keroog mi ngi dajewaat ba léegi. keroog tamit ñu ngi seetlu ci sa biir déclaration yaa ngi wax ni dañu war a jël kenn si ñi fi nekk ngir mu mën a jëmmal mbir mi. soit politicien lay doon wala koo xamante ni sax dafa war a nekk président ëllëg pour mën a dëggal suñuy valeur ñeen ñi noonu lañ ko déggee. waaw xam nga wax moom boo ko waxee ba noppi doon nit ñi déggee leen ma nii déedéet yow li nga li nga sañ mooy nii laa waxee léegi nag déggee leen ma nii moom kenn sañu ko ndax euh, bu mbooloo amee wala léegi am wala ak yu mën a doon. ku ci nekk bi nga ñëwee da nga cay da ngay am loo xam ne da nga ko ca mën a am récupération nangam nangam et cetera waaye ñu li wax rek mooy mbooloo mu toll noonu daa war a am daa war a jëmm ndax penc mi xam ne mbooloo mi mi ngi fi force bi mi ngi fi su boobaa nag ndax dañ koy def ab force teg ko ci loxol nit dañ koy def nangam loolu nag ña fa toogoon ñoo koy xam ak ku la nga déggee di jataay ba nun nag la àdduna nun lay doxee ndax alxuraan lu lay wax naan ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la gën a rafet am nañ am nañ sens fii am sens fële hmm. ñu gis ne tamit dafa am couleur couleur bu nekk foofu bu yëngu ci euh, borom ñaari tur yi bind seen liste ba boole ci xalifa général des Tidiane euh, mu nekk lu jullit yi di ñaawlu euh, waaye nag donte ñoom seen état tontuwuñu association boobu mais ci loolu sénégalais yi rawatina pouvoir bi fi nekk nii naka la war a gisee loolu. waaw xam nga loolu moom du lu officiel du lu officiel dafa am ñu ne buñ sañoon ñu officialisé ko loolu lañ wax léegi nag comme loolu xewagul. dañuy taxaw ba xam ndax France moom day dëggal loolu du ko dëggal bu ko dëggalee ñu door a xam nag léegi loolu ma ci suñu taxawaay ndax ñun France euh, guerre mondiale buñ demutoon nëg ni Allemagne def na ko ci ci biiram euh, dem nga ñu fa demoon am na lu muy tekki donc dafa am ñu wax ni ñoom dañoo bu ñu sañoon seen ministre de l'intérieur ñii buñ fi ñëwati loolu lañ wax léegi nag ndax ministre de l'intérieur ba fekk na leen ci wala déet xaar ba ñu fekk leen ci wala déet. bu leen ci fekkee nag wax ne léegi ñii duñ fi jaar ñu xam ne ñun suñu état ñun nu ñu def ba xam ñun France ñun euh, dañuy toog ne duñ fi jaar ak ñun nu ñu def ak ñoom. ñu dégg tamit Mame Matar Gueye euh, mi jiite Jamra ñu ngi koy dégg ci bi mu ni am na benn kuréelu franc-maçon boo xamante ni ñu ngi nas nañ benn euh, waxtaan ba jiital ki leen wala représenté fii ci Sénégal mu mel ne kon xeex bi dafa day doog tàmbali. waaw loolu de xam nga ñoom Mame Matar ak ñoom sàmm jikko yi ñoom seen yooyu ku ci nekk daa am pàcc boo xam ne fa ngay féete. bu ñu bu ñu féete ca pàcc boobu ñuy féete fenn ndax yàlla la kenn mënta féetee fépp donc suñu waxee yu noonu ah am na fu ñu argument fu ñu ko teg su boobaa léegi ñun ñi nga xam ne ñun tam ñoo dëkk penc bi bu ñee nekk ci côté bi ñu nekk ci côté bi ñu nekk ci côté bi bu ñu ñun ñëpp dana am lu mu ñuy jariñ su boobaa léegi nag ndax ñu ngi bëgg a ak ñoom seen yooyu ñoom am na fu ñu koy fu ñu koy jëlee ak fu ñu koy teg ak nu ñu koy doxale ala kulli xaal réew mii daal di suñu réew euh, réewum diine la ñi ko dunde ñi ko dëkkee ay nit yi diina lañu ay mag lañ ñoo xam ne tabax nañu lu baax a baax ci réew mi lépp loo xam ne day yàq tabax boobu wala mu koy gàllankoor ñi dëkk réew war nañoo góorgóorlu ba buñ mujj pusi bi mu réer réew mi li fi Cheikh El daj ndax mu baax li fi moom Sëñ Tuubaa daj ndax mu baax li fi Seydina Limaamu daj ndax mu baax kenn noonu kenn noonu ku lim jum loolu wax dëgg yàlla bu ñu mujjee pousse ba mu réer ëllëg noonu lañ koy laaj kon nag lu ci war ci taxawaay lu ci war ci waxtaan lu ci wax ci diisoo war nañ ko def ñun ñëpp lu ci war ci jubbanti xale yi li wax ci eh, dellu si seen xel yooyu yëpp lu ñu war di taxawee la donc groupe boobu nga xam ne mooy mbañ gàcce ñoom ma maxtaar groupe bee di ñoom ñi nga xam ne ñooy sàmm jikko yi beneen noonu beneen noonu prédicateur les les imams et cetera yooyu yëpp kenn ku ci nekk bu ñu dajee rek incha allah jombul mën nañoo defar ba sunum penc ëllëg du nekk penc moo xam ne dañu mujj pasi bu mu réer affaire bi booy jinnee tamit actualité la euh, actualité la ñu gis ni rëcc na même pas ñeenti fan ñu jàppaat ko déjà jàpp nañ ko waaye est-ce que gis nga ni koo xamante ni dafa dafa rey nit reyul nit mais nga téye ko lu yàgg téye bu yàgg boobu noonu est-ce que du moo jur lii waaw alakuli xaal ñun ci sunu réew yi bu ñu tegee nit loxo maanaam kuñ jàpp ci lixóor wala ñu ci leneen dañ la bëggoon a indi fi ñu lay denc denc la corriger la delloowaat la penc mi téye yàgg yooyu nag day tax corriger ko ak delloo ko penc mi du yomb ndax barabu correction la ku mën a doon dañ la fay tiye corriger la delloo si la penc mi buñ la corriger wu ca teel delloo si la boo fa yàggee soppi ko ya fay am day tax buñ la fa delloo si woon nga dellusaat ci penc bi doo fi mën a nekk ndax rejeté nañ la ba pare donc loolu nag muy booy jinneeg booy malaakaak booy xës ñoom ñëpp ci bokk yam kenn ku ci nekk dal bu ñu la téye waruñu la téye téye yàgg yi du du firnde nag ñoom ku ñu yàgg da ngay daw noonu waaye daal war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax ku ñu téyeeti diir bu gàtt ñu àtte la xam fooy féete bu fekkee da fi nga féete mooy dañ laa war a àtte nga dem ñu àtte la nga dem bu fekk dinaa war a àtte tëj la ñu àtte la tëj la waaye daal téye yu yàgg yi bari na loolu tax na kaso yi fees na dell dell ba amatuñ def te Sénégal ñi mu ñoo tabax kaso waaw jërëjëf ci laaj bu am solo bi euh, fi ñuy fi ñuy fi ñuy daanelee rek gis nañ ni tamit kaso yi dafay bari nit mais ñi ñenn ñi di ñaawlu mooy da gis benn xale bu sàcc lu ndaw sàcc benn portable nga dem tëj ko ci daanaka un an ñii ñii da koy ëpp sax est-ce que da ngay gis ni ñenn ñi ni soit dañ leen jàpp ak ay phobie ay xaalis ñuy jege nguur gi injustice boobu nit ki bu nekkee kaso di yëg loolu est-ce que loolu du indi benn révolte boo xamante ni mën naa indi musiba ëllëg. waaw xam nga euh, àttekat day fexe ba ñu wóolu ko jàngalekat day fexe ba ñu wóolu ko fajkat day fexe ba ñu wóolu ko su fekkee ñii àtte nit day gis benn projet moom ci bopp nga toog xalaat ni nii lay mujje mu far mujje noona day mujj ak dutuñu dutuñu wóolati suñuy àttekat àtte daal moom mooy ki koy def na yëg ne lépp lu ñu àtte da ko àtte wax képp koo xam ne ko tooñ nga da néew doole ci ñun ba baa ki nga tooñ néewal ko doole di am doole yow tooñ lu la demee àtte yi la war demee mu doon ñoo xam mu doon loo xam ne ñëpp ci bokk yem képp koo xam ne kii tooñ nga da ragal yoon koo xam ne kii tooñoo nag da nga ñeme yoon jërëjëf ci laaj yu am solo yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kontaan nañ bu baax a baax mu nekkoon Oustaz Alioune Sall ci émission gise ak ñu jël ci tempsam bu bu xamante ni dañ ko dañ ko dañ mën naa la ñu nangu sax tuuti ci tempsam mu waroon nekk si beneen liggéey di ko si jégalu bu baax a baax di lañ jox rendez-vous ci beneen émission beneen gise ak